asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki jullit yi fi teew yëpp maa ngi leen di nuyu nuyoo lislaam bàyyi ko ci Cheikh Mahamadou Mountakha di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. aleykum salaam. ñu may ma nuyu sama mbokk yi ma fekk te. sëñ Abdou Samad mi nekk fii sama wet mu Cheikh Mamadou Fat moo di sëñ Mamadou mu sëñ mu sëñ Chouaïbou ak sëriñ Mourtala mu sëñ Moustapha mu sëñ Bala ak bokki jullit yëpp waaye may jiital nag sama mbokk yi fi jël kàddu kàddu yu rafet yu jat muy sëriñ Abbas Gadiaga waxam ji rafet na lool mat na sëkk jiital na ci li ci war a jiitu mooy kilifa yu baax yi lañu bokk te muy dund ba egg si fii te war koo dundal jox ko njaboot gi man nuy fàttali saa su nekk njaboot gi ñu xam ne wenn yoon la mel ni ngir la lenn lu ñu war a dundal kon sëñ Abbas jërëjëf wax jarafet na lool noonu laa ko jàllale ci sëriñ Moustapha Niang moom itam wax ji na lool te day baax bu nekkee ci jataay yii li tax ñu teew fi kii woote daa xam ne ci lañ bokk mu leen ndax bokk gi yenn la dina ji jenn la lépp lenn la te mag ñi nii nañ ànde woon moo tax ñu boole leen ji ñoom it ñu xam ne seen yëf lañ leen woo ñu ñëw nu ànd ko kon jërë ngeen jëf ñu leen jot jotali nu yóbbu sëñ bi ak cantuk sëñ bi da ko jotali mbokk yëpp kon maa ngi nuyu ñi fi daje ñëpp nuyoo bi nag maa ngi ciy jiitalaat ndaw yi président de la république te monsieur ministre Antoine Mbengue jiite ko ànd ak sun xarit sun wëlëre sun lépp préfet Tivaouane de monsieur Mamadou Guèye ñoo ngi koy wax léegi jottali nu yóbbu sëñ Muntaxa léegi ci saa su fa sëñ Muntaxa amee soxla nañ ko woo buñ ko woo dana xam ne bàyyam woo na ko ab sëriñam woo ko kilifaam woo ko mu def ci yitte taxaw ci taxawaay moo na ko sëñ bëggoon mu amee ko na kon noo ngi koy jot li cantuk sëñ noonu la ñuy nuyoo su préfet Niakhène ak autorités yi nekk ci département bi yëpp. Mhm. mu dellusiwaat dina wax sëñ laa ne ko sëñ baa ngi koy nuyu lu bari nuyoo bi nag dama xaw a ci wax yéene sëñ bi ni mu ko yéenee maam it lu ma xaw a sori ci man tuuti xaw ma tënk ndax ni ma fi dëkkee ak ni ma moomee bis bi. waaye sëriñ Muntaxa ne ma ko tànnalewaat def ko muy sama bis mm-hmm. lu mu xat-xat la jamono ji xat-xat mu ne ak lu mën a xew ak lu ma mën a jàpp naa ko bàyyi ñëwal ko fi ci wetu sëñ Mortala ndax bis bi da ko ñor dëkk bi ñor ko waaye man itam dama fa dëkk ci anam mm-hmm. kon maa ngi wax waa gàddu yàlla na leen sëriñ Muntaxa nuyu na leen wax na ne bés bi bisama wax na ne ku fi ñëw moom nga fi ñëwal wax na gan ni gan ñi aw ay ganam lañ sëriñ Xaadim Amar wax na ko léegi sëriñ Basiru ak sëriñ Moor waxtaan nañ ko ci biir ak sëriñ Mortala Amar fi laa daan ñëw sëriñ Gumba di ma nekk lépp sama waajur sëriñ Abdou Latif itam dëkk bi ab dëkk ma waxtu ko ne defe daan ñëw di ak sëriñ Gumba ci yitte ju fi am ci réew mi yëpp ñu ànd ko loolu kon mu dee dox ba sëñ Mourtala yàlla boole nu boole ko yàgg koo xam ne xamu ne woon ne lépp danañ ci ak si agsi mu ci mu yor liggéey bi muy muy ndawal sëriñ bi ñëw war a ànd ak moom gis bi ak jataay bi kon sant yàlla rek lañ ci def sant yàlla lañ ci def cant ko amul fu mu yem ndax xam na ne bu baax waa nañ ko fi léegi ci wax jataay bi bis bi yokk na bu baax a baax xam nañ ni sëñ Mourtala yokk na ko waaye ndawam yii de sëñ Xaadim ak ñi ñu àndal liggéey bi yokk jàppale nañ ko ci yokk yi ba yokk na bu baax a baax ndax barab boo fa dëkkee dafa am na nga xam xam naa ne yokk na te sëñ Mourtala noppalu na ci te loolu nag bu amee sëñ Xaadim mee la ak sëñ Xaadim mii ak sëñ Gumba seen kilifa ak ànd ñoo ànd ak seen mbokk yëpp ba ni mu war a mel mu mel ni sëñ Murtala noppalu ñëpp big mu mel mu war a mel loolu bokk yu ànd nañu war a ànd rek moo ko mën dëgg la naa leen bu baax a baax ci turu sëriñ Muntaxa da ngeen xam ne sëriñ Muntaxa wax na ne bis bi lu ci manqué woon moom lay manqué dana ko métti kon nag bu amee ni war a amee dana sant te buy sant yéen ñi ko taxaw ba mu mel ni mu war a mel yéen lay sant kon sëñ Mountakha mi ngi leen di sant bu baax fii nag waxoon naa léegi ne wax fi day jafe ci man ndax li ma fi xam na bari bari ba tuuti rek laa ci mën a wax ci jataay bi guddi na jataay bi yàgg na waaye li ma fi xam ni muy bari bari lu baax rek la lu rafet rek la lu mag ñi doon dox rek la ci Serigne Touba ci njabootu Serigne Touba ci Cheikh Moustapha Al Karim Cheikh Mamadou Basir ci Serigne moor ñu ànd ko jaar ci ñu fi jaar Serigne Cheikh Mbacké Serigne Moustapha Basir ba ci Serigne Mountakha mii xam na ne luñ mas a leen mas seen diggante bi ci ak rafetal kon nag bu ñëwee ci Serigne Mountakha Serigne Mountakha nag wax naa ko léegi Serigne Serigne Mountakha ci biir dafa am xaasi boppam ci biir ci mu Mountakha moom Serigne Mountakha sëñ Muntaxa waxi sëñ Murtala Amar daf koo saf lool te da koy dugg lool daay lii sëñ Mamadou yabal di leen bale sëñ Murtala ñu ñëw ci sëñ Muntaxa bu ñu egsee balaa sëñ Muntaxa wax dara bu gisagul sëñ Murtala Amar dana laaj ne ndax sëñ Murtala ñëw na bu sëñ Murtala ñëwee bu xam na ne bu waxee ba noppi lam ci bëggoon a xam lépp moom sëñ Muntaxa dina xam buy tontu it tontu la ci sëñ Murtala la koy jaaralewaat mu ja muy àggale ko ci sëñ Maamoor àggale ko ci bokki taalibe yëpp loolu nag tafeexi sëñ Murtala Amar la ci sëñ Muntaxa da ca dolli ko ñu xam ne sëñ Muntaxa jenn yitte la am te ñu ngi koy fii mooy luy dundal lislaam ñu ngi ko ci fii ci gàddeel te sëñ Murtala Amar ñu ma ko jiite ñu ngi dundal lislaam ji bu baax a baax te kilifa yi ma tuddoon léegi sun mbokk yi sama mbokk yi mu fi tase mooy sama mbokk yi dingalaay sama mbokk yi tey ba ñan sun mbokk yi fi ñun bokkal nekk xam la ne ñu ngi dundal diine ji bu baax a baax fii xam nañ ne ni it taalibe yi ñu ngi koy dundal dundal bu baax a baax ndax xam nañ li leen sëñ Tuubaa seen dëkk bii te ñu ngi ci di ko dundal loolu mu andi ànd gi mag ñi àndoon daan fi ñëw ba indi fi li fi nekk kon sëriñ Muntaxa mi leen sant sant na sëñ Mourtala Amar bu baax a baax sant na waa gàddi gi ñëpp ma dellusiwaat rek ci monsieur le ministre di leen xamal ne sëñ yi itam wax na ne seen jataay bii xam na ko neex na ko sedd na xolam ndax fi ngeen ñëw këram kon lu ngeen fi def moom ngeen ko defal te wax nañ fi léegi ne sëriñ Xaadim Amar wax na ko day bañ a xaababal moo tax waxoon na liñ digoon danañ ko cent pour cent waaye dina nañ ko quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf pour cent kon liñ fi diggoon lépp def nañ ko monsieur le ministre noo ngi la xam ne loolu dégg nañ ko daan ko jottali sëñ Muntaxa ndax sëñ Muntaxa fii abatam lu ñu fi def moo lañ ko defal lu ñu fi kon li ngeen fi def sëñ Muntaxa ngeen ko defal danañ ko jottali bu baax ne defal ngeen ko lim bëggoon ci gàddeel kon du ma guddal ndax ma guddi na ko nag te ñi des am na ñu des kon ma di leen xamoon rek ne sëñ Muntaxa bég na sant na nuyu na ñëpp sant ñëpp ñaan na fi itam jàmm ñaan na fi itam ak yokk ñaan na fi itam nun ñi fi teew ñu teewaat fi déwén ci sëñ Murtala amal jiitewaat bis bii ñu ko fi ñu ko bëgg a yóbbu fi ko ñi ko ñun ñu fekki ko déwén ci ak fekki ak tal sëriñ Muntaxa fekki lépp mel niñ ko niñ ci bëgg réew mi liñ fi waaj muy jongante bi suñu borom dafa ko jëf ci jàmm da ci ndox mu sedd kii fi war a toog toog fi lépp ànd ak jàmm ñëpp ñëpp seen kër ci alhamdulilah rabbil alamin kon nag jërë ngeen yëf sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp asalaamaaleykum sëriñ bi dama bëgg kàddu yi may yëkkati ma tàmbalee ko di la ñaan nga yeggalee nuyoo son excellence le président de la république Macky Sall au xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké yàlla may ko gudd fan leer ak wér di sàkku nga yóbbu nuyoo premier ministre Amadou Ba ci baayam kilifam di xalif général Serigne Mountakha Mbacké di sàkku ndax bu ma fi ñëwee également cëru ministre de l'intérieur la waaye mu bàyyi may conduire délégation bu ñëw fii nga yeggee nuyoom également kilifa bi di xalif général des Mourides yàlla na ko yàlla may wér di indi nuyu délégation gii ma àndal euh, nekk ak monsieur le préfet du département de Tivaouane monsieur Mamadou Guèye ak collaborateur am yi yëpp au niveau de l'administration locale fii ci departement wu Tivaouane ndax bu ma fi ñëwee tey ci seen mbaax ak liggéey gi ñu fi jot a def moo yombal suma ñëw bu ma nuyoo ba pare sëriñ bi damay jël suma nuyoo bopp jox la ko di la gërëm di la sant ndax bu ma fi ñëwee cëru président de la république ndax ci mbaaxam la tànnee doom ci département wu Tivaouane def ko ministre mu war a liggéey sous la coordination du premier ministre Amadou Ba cër boobu mooy cër gi ma njëkk a toogee fii sa wet pour indil la seeni nuyoo ak seen taxawaay ci Sénégal waaye mën naa bu ma paree ci cër yooyu wax ni cëru doom it la fi ñëwee ndax yàlla dafa def ñu xamante balaa lii yëpp yàlla def tey ma ñëw ci bés bi gis ni bés bi taaru na lool sëriñ bi bés bi gën naa taaru ndax dalal nga fi këru diine yi yëpp ba ci église bi ma bokk te li ko gën a rafetal danga tàmmul sa bopp ne man doomu département bi la ministre la man sàkku nga ma ñëw fekkee bés bi yàlla def kilifa yi jox ma ndigal boobu tamit parce que bés bi yàgg nañ koo taxaw ak ay ministre waaye loolu mënuma bett ndax ku gëstu histoire communauté Darmanko xam ni ci héritage ci origine nit ñu baax lañu nit ñoo xamante ni seen itte liggéeyal diine bi liggéeyal suñu maam Serigne tuba moom ngeen fi nekkee am nekk pas-pas ci yar njaboot bi ndax gis nañu seen taxawaay ci éducation am na ku ko fi wax sànq di dalal suñu xel ne njaboot bi de mën nañu am xel mu dal ndax dara luy yàq du fi sokkee ko waaye loolu lañu xam ci histoire maam yi doon ko def ci kër gi mm. ngeen continuer di wéyal gën naa dalal suñu xel parce que yar ngeen njaboot bi waaye ñaax ngeen njaboot yi ci liggéey ak ci njàmbaar kon boog li ngeen dalal këru diine yi yëpp fii mënuñoo bett bu ñu fi ñëwee ci mbaaxu président de la république parce que ñëpp seede nañu ni Sénégal gi bi mu ko jëlee ba léegi am na fu mu teg diine même bu dee suñu constitution dafay ne république laïque lañu moom dafa mës a jàpp ni lu république laïque laïque ay nit a ci nekk nit ya ca nekk dañoo am diine mu tabax taxaw ci tabax diine googu jàppale kilifa diine yi ci programme yi muy def programme cité religieuse yi ak foyer religieux yi pour que mu jàppale leen ndax euh, topp sa diine yomb ci dëkk yi mm-hmm. loolu ñu ngi ñaan mu yegg fii parce que gëm naa ne cofeel gi mu am ci tund gi ak lu baax lañ fiy liggéey du ñàkk ni programme boobu dina fi yegg parce que gëm naa ne ñamuy liggéeyal mën nañ ci tudd premier ministre Amadou Ba nampal na leen ci luy defar diine te jàpp naa ne ñooñu bu ci yàlla àndee duñu bàyyi yoon googu buñ fi ñëwee tamit ci jataay yu mel nii surtout ci contexte bu ñuy jëm parce que dañuy dem ci contexte électoral ñu xam ni kilifa diine yi suñu maam yi yàgg nañu taxaw dëkk bi kon boog dañ ci sàkku ñaan ndax tolloon nañu foo xamante ni tiitoon nañu ñun ñëpp ndax suñu réew doon na demee neneen loo xamante ne kenn yaakaaru ko kenn mësu ko woon xalaat ñu jàpp ni rek ñaanu maam yi ñoo ñu téye waaye tamit lu ñu ñaanoo maam yi téye téye am nañu cër bu ñu war a dox te cër boobu dañ koo yaakaaree ci yéen ndax yéenay yar njaboot ji won leen lu ñu war a def ak lu ñu warte def kon boog bu ñu fi ñëwee ci turu président de la république war nañ leen mën a dénk Sénégal bu ñu bokk ñun ñëpp sàkku ci yéen ay ñaan yuy téye Sénégal waaye sàkku ci yéen ay ñaan yuy defar jikko yi ndax élection la ñuy jëm yàlla fal na kiy jiite senegal ba pare ñun ñoo koy mëttali ci suñuy jëf ndax bu ñu demul wotewu kooku yàlla fal du génn waaye nañu ñaan yàlla jeetaay bii ngeen sumb mu rafet loolu mu doon jeetaay boo xamante ne ñaan yi ngeen fii yëkkati dina dimbali Sénégal ñu ñaan également ki yàlla tànn pour senegal mu doon ku koy njëriñ mënoon naa sot ne yàlla na doon suma candidat waaye loolu du jataay bi waaye yàlla na ñaan yi fexe ba ki ñuy fal doon ku ñuy defaral suñu réew kon boog sëñ bi maa ngi rafetlu jataay bi te li ma fi gis naa ko yeggee kilifa yi te kilifa yi seen njaboot a ngi ci biir jataay bi ndax maa ngi gis Duudu Ñaasaar buy liggéey ak premier ministre ci jataay bi xam naa bu ma ko fàtte woon yeggali sax ci kilifa yi dina ko yeggali beneen cër bi mooy cëru doom ndax li ma la fekk ngay def fii mënuma bett ndax ni ñu xamante dem la fekk ngay ñaw ay diggante yu yàqu dëgg la nga soxla ma ci ñu waxtaan ci yàlla barkeel li nga doon dox mu mujjee ci jàmm kon boobu bu ma la fekkee fii tey en tant xalif di gàdd yeen woo këru diine yi yëpp ci sa jataay jataay bu taaroo nii mënuma bett ndax ni ma la xamee xamel bu rafet la woon def la bàyyi ñëw fi tey doon doom donc di sàkku ci yow gën ñaanal mi ndax li ñu yor dañ ñu ko dénk rek moomuñu ko te bëgg nañu luñ ciy def mu rafet mu yàgg mu gàtt na doon lu rafet boo xamante ni nit ñi mën nañ koo nett ne diw jaaroon na fi waaye bàyyi na fi woy bu rafet dëgg utuñu ci leneen kon boog loolu lañ lay ñaan sëriñ bi nga jàppale ñu ñaanal ñu ci waaye ànd ak mbooloo mi yëpp këru diine yëpp fi dajaloo ngeen ànd ñaanal Sénégal fa ñuy jëm yàlla sotti fa jàmm li ñuy sàkku ku ko yàlla namm mu doon ko mu doon ko ñu kon ne di nuyoon nuyonte di liggéey ci jàmm loolu daal la ñuy sàkk te bëgguñu guddal ndax ñi fi jaar yëpp gàttal nañu kàddu gi donc dañuy lay gërëm sëriñ bi di la féddale kóllëre yi boo xamante ne wonoon nga ne ko balaan lii xew tey xew te jàppal ne rek dinañ ko sàmm te lépp li fi war a jógee loo xamante ne jot na pour kilifa yi xam ko dinañ ko wax te dinañu doon des avocats pour la communauté de Gardayel surtout par rapport au projet de modernisation des cités religieuses et des foyers lu luñ ci mën ci kàddu bu war a yegg ci ña ko dinañ ko fa yeggee ndax li ñu gis fii rafet na taxawaay bi rafet na ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen baalu ak bu fekkente ne wax nañ lu ñu warut wax ndax dañ ñoo yebal rek te ki ñu yebal tolluwuñu ko ci weer moo tax la mu mën a wax jegewuñu ci wax ko kon boog nu ngi jéggalu bu dee kàddu bi am na lu ci ñagas ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan jataay bi kon na ci jàmm ñaan yi ñu ciy ñaan yëpp yàlla nangul ñu ko jërë ngeen jëf macha allah Cheikh Mamadou Moutada Amar lu fi sëñ Mor Faar ma bàyyi woon ràppul raaful réerul boo demee bàyyi ku baax loo fi bàyyi du ràpp du raaf du réer rafetal nga ginnaawam lool ànd ak sa mag gi sëriñ guma ba am ngërëmam ànd ak Cheikh Mamadou Fadel ba am ngërëmam tey nga toog sa jataay bi yàlla na am téeméeri at yu tàmbalee tey bis bi nag manu géwal laay waaye gis naa ci baat yi ñu ngi ci 66e édition 66 mooy lan mooy limub Allah yàlla na nga ko toogaat ci xilaafa gi barke Cheikh Mouhamadoul Moustapha maa ngi jox kàddu gi maa ngi jox kàddu gi un grand intellectuel yarhamukallah maa ngi jox kàddu gi un homme éloquent bu nu àndee ci tournée yi bu situation bi jaxatoo sëñ moo de tournée mais ana Moutala Amar mu ne Mbàkke mu ne ko mu ne ko Moutala régler situation bi ak lu mu compliqué compliqué lu mu doy waar doy waar Cheikh Mamadou Moutala bu jóge ba ñu waxee ñaari baat gaa yi ni maa ko fekkee ci États-Unis d'Amérique maa ko fekkee ci Cincinnati maa ko fekkee Chicago ko fekk Baltimore maa ko fekk Michigan Detroit maa ko fekk Italie Espagne ak États-Unis d'Amérique maa ko fekkee nag bakkan lay laaj maa ngi jox kàddu gi ki surtout kër Maajoor Saali bii ki waa kër Maajoor sa maam duñ dal daal duñ nangoo bañ Maajoor ma ko du ko mu jaani ngeen nañ joloor ga la ma sas ma ci rafay saas ba teñ cànde teñ jaay jaafuñ ba la na part tamit tiñ umri ngoone borom Kajoor Bawol maa ngi jox kàddu gi naar piir sëriñ Mor Faar ma la sa bàyyi tudd sëriñ Gumba Asta ma xarit la bàyyim tudd maam yi dum julit la baayam tudd maam bi din soxna la baayam tudd maam yi dum julit la baayam tudd mataar xari ma gumba may mu ne gumba ngoone mi santoon dëkk bii di gàdd yàlla bu ma neexee mën na maa dem ba ci ma mouhamadul amin bu ma neexee ba mën naa dem ba ci mouhamadul amin mouhamadou ayub al ansari yaa baax yaa man rafetal mosuma dégg mukk nga wax lu ñaaw ànd naa ak yow ak sëriñ Mamor Moutala fukki at ak ñeent ab defarkat nga yàlla yàlla guddal sa fan maa ngi ñaan ku ci bâche bi na nga ñaanal sëriñ Moutala Amar yàlla guddal fanam te may ko wér njabootug sëriñ Fallou gii njabootug sëriñ yi sëriñ Gumba gii kenn lu jooy seen wu ju si jëmm yi na nga njabootug kanaara nga leen dépp yàlla na tàgg loolu te am vous avez la parole wajal saqirana yuwaqirul wayal kabirana yuhilu li saqir wajal qulubana ala tawaddudi bila tanasun wala taqasudi wala taqasumin wala tadabbure ولا تباعد ولا تنافر قطع نزيل مسلمين قاسعين ومؤمنين مخلصين سالئين قطع نزيل مسلمين قاسعين الحمد لله يا يا رب كن بني Cheikh Mourtala bur yàlla seede na lii yow yaaram bi kenn bañu laa amar na ngeen ko déglu te sellal xol yi koy wut a xam lu ne ci mën na xakam yow yaaram bi kenn bañu la kuy waare nay waare man gis naa ki sama bët def li nii ñu màggal Cheikh Mourtala amar yaaram ki sama bët yow yaa haram bi kenn bañu laa alhamdulilahi rabbil alamin salawatullahi wa salaamu ala sayidina muhammadin abdihi wa rasulih ixwat al imani wal irada assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh di nuyu mbokk jullit yi fi teew yépp te muy kilifa diine muy kilifa kenn ku nekk ñu ngi lay wàcce sa dara sa wàccukaay ndax yonent bi sallallahu alayhi wa moo waxoon ne ansiloo naasa manaasilahum kenn ku nekk nañu ko wàcce palaasam kon kilifa diine yi Serigne Cheikh ñu ngi leen di bàyyi xel te di leen wàccee seen palaas ak sa mbokk yi fi toog ak ñi ñëwoon ci bëccëg ak ñi dugg si léegi di wax ne monsieur le ministre yaag délégation bi nga àndal yépp ñu ngi leen di wàcce seen place ndax yàlla moo ko dogale noonu dinaay wax ni nag nangu ba nangu jeex nangu dogalu suñu borom moo ci gën waaye gànt ba gàntu jeex gàntu tere yi suñu borom moo ci yées te bis bii su ma waxul wax mu doy ndax sama njaboot gi jëkk a wax tàmbalee ci tur tànk Thierno Ndiaye mu jàngal nu alquran loolu présentation la pour kër gi Serigne Khadim bu Serigne Gumba wax nga xam ne kii rassembleur la day dajale ay nit ndax waxam loolu yëpp feeñ na ci nga ñëw déglu benn amaar muy suñu rakk di professeur waaye bu nu gisee li mu xamoon du ko jëfandikoo day laaj ndigal ñu wax ko mu def te boroom xam-xam la xanaa yoon yooyu baaxoo loolu rek di laaj ndigal ak nu nuy def waaye lu mu lay laaj nu koy defee xam na ko bu yàgg di lu kàddu biram seen mi wax ci tuuru taalibe yi te way biram daan ko wax di bàyyi xel bu baax sëriñ Moustapha mi fi toggal Cheikh Mouhamadul Mansour wax fi kaddu yu rafet yi mu wax sëriñ Abbas waxtu këru këru diine yi ki nga xam ni moo wax muy sëriñ Xaadim Amar doon dox ci wàll organisation bi déglu ngeen ni mu ko leeralee man duma ko sant mu dox ko dama koo teg ci yi ay magam yu sant ko ko mu dox ko kooku fokk mu leer ñun waa ittil wal aaxir la ñu xam kenn jiitu kenn topp ci loolu la xam kër gi amul lànk kër gi amul lànk ak gi toppante la xam te toppante soo koy jàng sax ci diine day yomb ndax yàlla sax bi may wax ak ñun dañuy atiu laa wa atiu rasula nee na nañu ko topp moom yàlla waaye nañu topp yonent bi nga xam ne moom la yónni ci noonu xam nga loolu amul jafe-jafe ku ne xam na yàlla tolluwaay ndax moo nu bind ku ne xam na yonent bi ndax moom la yónni ci ñépp ku nangu ak ku gàntu waaye nag wa ulul amri minkum kooku la jafe-jafe bi nekk boo gisee àdduna bi yëngu dañoo am ñaar ku ñuy dégg dafa am ku ñuy déglu am nit ñi nag léeg-léeg ñu jaawale ko ki nga xam ne dañ ko waroon a dégg rek ñu koy dégg ki ñu waroon a déglu ñu koy dégg mooy tax nañ leen jamono xam waaye bu ñu doon déglu ki ñuy war a déglu ki ñuy déglu ñu bàyyi ko ndax rajo yi ñuy wax kenn mënu koo déglu dégg rek la ci man ndax ku leen jox sa nopp bu ci yow de bu subaa keneen bind ko doo xam fooy taxaw waaye nit ku baax du bàggantikoo ci benn day am kilifa ñun nag suñu ulul amri ci wet gi mu féete mooy Cheikh Mouhamadul Muntaqa at bii nag am na fu ñu toll monsieur le ministre mooy lu ñu dégg muy indi yàpp ci réew mi ci dox waaye muy yàq réew duñ ko wax ndax kat yéen ministre de la république di premier ministre di ñëpp waaye bu jamono xatee ñooy gën a sonn ñëpp ndax ñii ñëw ñu woo leen te ngeen joxu leen paas bu ñu amatul woon dund kër sëñ bi la ñuy ñëw kër sëñ bi mënut a yor kon ni ñuy bëgg jàmm di ko dox di ko wax yàlla leen yàlla may ngeen xame ko noonu ndax tantôt ay spirituel ñoo fi nekk waa université ak waa daara bu nu toogee te bëgg waxtaan am na ci ku déggul la mu jàng bu ñu toogee te bëgg waxtaan am na ci ku déggul la mu jàng noonu de bokk nañ tey ci niveau bi nu toll Cheikh xam na ko imam ingénieur bi ñu fi leen toll nit génne jàkka ji bu subaa mu defe leneen ñun ci niveau boobu la ñu toll waaye ñun tollootuñ ci imam boo xam ne lii rek la moom génn nañ ci néew boobu bu kon nag dina baax ñu nuy bàyyi xel ndax doomu daara yi boo leen di déglu da ngay xam ne ñoo waa université bi ñoo bokk léegi parce que danaay wax ne xam-xam ak langue du benn ñu bari dañu ko jaawatle xam-xam dañu ko aj ca kaw lang mooy balaxu biñ koy lonki mu wàcc pour nga man koy jëfandikoo waaye li ngay làkk du xam-xam xam-xam ma nga ca kaw lang balaxu bu ko jëli la ndax ci médecine boo demee ci chinois lañ koy bind nga ñëw ci français ñu bind ko ci français waaye produit bi benn làkk yeewu wuti kon loolu moom la ñuy tuddee xam-xam kon ñuy ñaan yàlla rek yàlla def jàmm ci réew bi di gërëm le président de la république ndax ku xool semaine bi li fi ci dëkk bi ci matériel ak ay autorité ak lépp loo xam ne ci CRD CRD bi defoon nañ ko boo taxawee ci pénc bi da nga xam ne lañ nga waxoon def nañ ko nun na loo du nu ñoo xam ne loolu nu defal rek ñu ne ko yelloo waaye ku ñu defal rek ñu sant la te yàlla tax waaye nag du nu demande dara lii nag li tax ñu sañ ko laaj mooy communauté bi ñoo ko soxla ci seen événement ngeen ñëw jàppale leen ci ba nii mel nii loolu ak jàpp am na ci ki jiite réew mi muy président de la République di sant premier ministre Amadou Ba di sant ministre de l'intérieur Sidiki Kaba Amadou Ba moom su ma ko waxuloon dara sama xarit be du ñaar di chargé de communication leer na ne bala maa sama kàddu Amadou dana ko ne nu seen gàmmu gi def kon duudu sama laaj yi mën na ma waxal fu ne waaye tey nag yow la président yow yow laay waxal ñu ngi jot nañu suñu message Serigne Cheikh mi fi toog wax naa la léegi ne la ki ko fi yebal si kooku la ñuy déglu te ku ko xam-xam ne républicain la parce que bu dëkk bi yëngoo mu jóg ku ne xam na ne social la ndax lu mu am bu nit bi sonne mu dimbali leen kooku kon charatan wa faxran li ummal islamiya la siyama al muridi ndam la ci umma islamiya waaye sag la ci yoonu murid mbokkam mais ca Tiwaawan mu di sëñ Mbay Si Mansour bi mu toggee li mu wax wax quulu linnaasi xusna day leen wax lu rafet wax lu rafet mooy tax yu bari du xew waaye réew mi ëppale wu ñu ku tedd kàddu gu jiw kot kàddu gu jiw waaye ndokk mag ñi bi ñu xamee loolu Sëriñ Tuubaa nee na jamono dana ñëw ba ci kanam man Ahmadu mii ngeen jox seen bopp di ma déglu ma di leen digal da ngeen dem ba jamono ñëw am ñu may saaga man di may sànni kàddu bu ñaaw waaye moo wax ne lu ma ci jëfandikoo maa ngi ñëw léegi fa kullu man shaddamani awlaama fa ablahu tawbata wa istislaam fa kullu man aza azallahu bi fa liyaqallib yaa ku ma nàññi daal wala nga yedd ma yàlla yàlla na nga ko jéggal te xelam ku ñaaw njort ci man yàlla yal na ko teetewaat tegaat ko ci yoon ba la mu xalaat mu génn ci xam nga loolu la muy gis sori na ba mu koy wax kenn jàppoon kenn jàppul woon ne danañ yegg ci jamono bu mel nii waaye ndokk nag bu ñu njabootam yore ji ko sànn ndax sëriñ Mountakha day wan nañu yoon te ci lañu jaar njabootam gi wan nañu yoon te ci lañu jaar boo déggee kàddu yi sëñ moo wax tey jii ci kër gi loolu daf ñu encouragé daf ne topp nañu tànk mbirum sëñ tubaab ba mu dugg ci kër gi mu bàyyee fi dara waaye wóor nañ la fi duggoon yàquñu ko dañu koo conservé téye lu bu baax nag te di ko sàmm moo tax yasdadu yawman ba'da yawm bis bu set mu dollee ko moo tax damay wax jamono gi ne leen fexe leen bëgg jamono xat ci yéen ndax am naa ñaari xiste yoo xam ne mooy tax doomu soxnaan moroom wa du jubóo te jànge naa ko ci ëttu sëñ Touba ma bëgg koo tari ngeen jël ko muy seen mbind sëriñ Saliou sëriñ Mourtada daf ma ne am naa ay gan ñu ma bëgg ñu siyaare sëriñ Saliou ñoom it ñu bëgg koo siyaare demal nga laajal ma ko wan waxtu lay baax ma ñëw ci sëriñ Saliou mu jafee gis ñu ne dafa baax góor gi Thierno Fall benn tur tànk la ko ne ndawul sëñ Mourtada bi fi rek mu ñëw ko fi ne ma mbaa yàgg koo fi mu ne ko déedéet mu ne bu doon suñu sago ku jóge ci yow bu ñëwee du fi yàgg ana sëriñ bi lu mu wax ma ne ko daa am gan ñu mu bëggoon la moom it mu bëgg ñu ziyaara la muy laaj wan waxtoo baax mu ne man da wan waxtoo nga jàpp ne mooy baax ma ne ko woo wax mu ne ma ndax fukki waxtu ci suba baax ma ne ko woo rek baax ma ànd ak ñoom ci mbaaxam mu daal di fexe ba wut ab toog gaa yi toog gaa yi ne ko demoon ci Amérique ñëw na jaar ci seen moto daal agsi ci yow di la laaj loo bëgg rek ñu defal la ko hmm. sëñ Saliou mu ne leen yéen de sama bëgg defal ngeen ma fa ngeen jógee di xentu ki ngeen di xentu ba agsi fii ci man loola de mooy sama bëgg te defal ngeen ma ñu dellu ni ko dañu laa bëggoon a invité États-Unis d'Amérique ngay sunu gan mu ne hmm? ñëw sëñ Mourtada day mooy sunu ñëw mboole sunu waaye fu yàgg ñu fekk ko mu tegaat ca ni ko danoo bëggoon a am ay nataal ak yow foto la mu ne ko dinaa ko gàntu de waaye jëmm jigéen jóge nii lu leen soob jëfandikoo leen ko ci jii sama njaboot dama leen bind boobu jël leen ko ndax bind boobu yombut fa mu jógee moo tax mu mel ni mu mel ba ca topp Cheikh Mouhamadul Mourtada hmm. mujj def maa woo ma ñëw mu ne ma Mourtada dama bëggoon boole la ak njabootu Daarul Xudoos ngir wër réew mi ndax dama bëgg ñëpp xam na sëñ Moussa ne ko yabalal sëñ Cheikh Mbacke mu dem man sama cëriñ nga ca kanam te la ilaha illallah waa ana ñooñu ana ñooñu ku la yabalal sa mu dem loolu cëriñ ma sama cëriñ nga ca kanam te danaa ci mais ñooñu duñu xuloo ci mbooloo jërëjëf jërëjëf amal duñu xuloo ci mbooloo xëccoowuñu mbooloo waaye déglul finition wu mbir mi sëñ Cheikh Mbacke génn na wër àdduna bañ defee ne moom àdduna daj na waaye bi sëriñ Mourtada bëri itam la ko sëñ Modou Moustapha waxoon def na ko ba àdduna bépp xam ne wër na dëgg la moo tax loo yéene rek sa moroom rek da ko am loo yéene rek sa morom da ko am moo tax barab bi du barab bu caaxaan sëriñ Souhaïbou Abou Madiana bu Cheikhul Khadim xaw ma fu mu jullee tëbës gi ci réew mi fii la ko jullee rey xamu tëbës ngeen jiite gàddu yam gépp ci teewaay si ñu fari loolu defe naa xam na ko sëriñ Abdul Ahad bi muy sanc kàbb gay fii la fanaan xëy sëriñ Bachirou da ne ca Némé sëñ Modou Moustapha nekk ca Némé maamu Pambay naa ko xaw ma yàggan ci réew même di waaye yaa gën i gan kon barab bi barabu sëñ Touba la patrimoine mouride la boo déggee sëñ Cheikh wax la ne la sëriñ Mountakha ne lu ngeen fi def moom ngeen ko defal moom daa xam ne lu ngeen fi def moom ngeen ko defal te muy xam nañ ne kër gi mooy këru sëñ Touba ndax ku fi ñëw ci yor yor demal ci ëtt sëñ Touba yi sukuraam ak nuyoo joxe ak yaay ñaan loolu kër sëñ Touba goo dem loolu nga fay fekk tey ñoo ñëpp ñëw ñëpp loolu lañ fi gis te lu bokk nuroo te lii fi nekk foofu la jóge kon ñu ngi ñaan yàlla sax amiin bu loolu jàllee nag sëriñ Seex nun day sëñ mu toll ci nun yëg-yëg la yëg-yëg nag kenn mënu koo expliquer dama am sama xarit bu wax jamaan jóge Banjul jëm si Touba bi mu dikkee ba génn ba génn Mbàkke jàkkaarloo Touba ne ma Ahmed ma ne ko lu xew mu ne ma li may yëg bi ma jàkkaarloo sooroor yi dugg Touba loolu lu mu doon ma ne ko loolu la mu ne ma loolu ma ne ko loolu la yëg-yëg kenn mënu koo expliquer moo tax murit yi li ñuy bari bari ak doomu daara yëg ku ci ne fa nga nekk la ngay yëg mënoo koo wax moo tax fii sëriñ Fadilu mas na ko wax sëñ Mor Farid ne ko man de jaaxal nga ma musuma laa gis mukk nga root guddi bëccëg rek mooy looy dox lu ne dafa leer musuma laa gis mukk nga root bi ci bëccëg loolu mooy doo dox dara lu lëndëm moo tax kër gi loolu ndono la ci ñoom waaye nag su ma santee taalibe yi gërëm leen war naa leen a sant gërëm leen ndax wax naa ko léegi ministre taalibe yi li tax ñu doy wax kenn du ci wax yàlla ma sëñ bi bëgg yàlla ma sëñ bi gën a bëgg seen langage mooy yal naa gën a bëgg sëriñ bi yal naa am lu ma jox sëñ bi yal naa fexe ba fu may gis sëñ bi am lu ma jëflante ak moom xam nga loolu dafa xaw a doy xam nga ko kenn mënut a xeex ak moom naa gën a bëgg naa am lu ma jox sëriñ bi loolu mooy seen wax waaye yàlla na ma sëriñ bi gën a bëgg benn murid du ko ndax bëggug taalibe bi ci sëriñ bi mooy jëriñ taalibe bi waaye bëggug sëriñ bi ci taalibe bi baaxul ci moom ndax noof la ku xool sëriñ see xam ne ku sëñ te bañ sañ a nangu bërki démb la màggalu poroxaan ni la wagul waaye bu ko sëñ Muntaxa nee ajjuma ji fanaanil Tuubaa xëy dem gàdd yàlla waaye sëñ Muntaxa xam na ne fii daara ji daaraam la dëgg waaye daara ji ni ñu koy wax rek li tàmbalee ci Cheikh Mouhamadul Moustapha ba ca Cheikh Mouhamadul Mourtada kenn ku nekk xam nga ne daara ji sa daara la parce que dafa am moomeelu maanaa boo xam ne moo gën a yaatu moomeelu milk ci loxo kuñ ne leen lii sa wàll ngi ci te yëg nga ne sa wàll ngi ci war nga xam ne wàllu woowu du lu ñu mën a dagg ay ay ay morceaux di ko jotee moo tax seen seet ci langage am ñu bari comprendre na dafa ne al ittihaadu ittibaa'ul xadiim li bokk sëñ Tuubaa bu ñu àndandee taxaw force bu rëy la ña bokk Maodo bu ñu àndee taxaw force bu rëy la bokk Ñaseen bu ñu àndandoo force bu rëy bu ñu noppee nag ñu boole seen bopp àdduna bi jàpp kër gii bu ku ne bale sa kër sa néeg ñu àndandoo bale ëtt bi ëtt bi set loolu moo tax ñoom noonu lañ doon doxe moo tax sëñ bi daal wax ne is kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawaan intama ila jeynani aw intama li ahmad tijani aw li siwaahuma min al aqtabi is kulluhum xatam ala sawa sëriñ si werd yi ñu yor di ko yëngal ku ko téye rek te jox ko xàqam mu yóbbu la fa la war a waaw moo si moom yaa jaani loolu la si daaji maa ngi wax dëgg la ah, waaw ñoom la jëm waxul tariixa de dafa ne ak turuqu turux yépp la ko yépp a ngi ci yàlla loo ci téye jox ko akam mu yóbbu ci raxmaan ci yàlla loolu moo tax jataay bi demee nii waaye yal yàlla réew mi nooy xat xat nag xolo koy indi ndax ku ne defaraat xolom rek ndax xol mooy nit sallallahu alayhi wa sallam daana wax naan inna fil jasadi mudga isa saluha saluha al jasad wa isa fasada fasada al kull ala wa hiya al qalb benn morso ndawal moo ne ci nit bu baaxee léppam baax na bu baaxul daraam baaxul mooy xol ku yëg ne sa xol baaxul rek seetaat ko koo xam ne jàpp nga ne diw mee da nga koo bañ wala sa noonu la soo ca bëggee génn defal bis boo xëyee jàngal ko ñaanal ko moom mi nga jàpp ne sa noonu soo ko defee ab diir la ñuy tudde mbañeel bu meloon ni xomaat day xoosu di xoosu di xoosu ba jeex takk nga xëy ni waaw man di lu ma koy bañee man de wax dëgg yàlla xaw ma moo tax yonent bi ne dee leen haddiyaalante dee leen jàpp ne dalaa bañ rek boo ko dee mosal bu yàggee rek góor a <laughs> def ñaan su ma fàttalikoo itam ma wax ni autorité yi gendarmerie ah suma xarit suma coloré honorable Ibrahima Khalil Fall kër Sàmbakan xanaa ne neen dako mu nii toog di nit koo xam ne séentuwuma ko woon tey ndax xam-xam waaye xalaat naan ni mënu ko waaye jii jamono ku ci def loo man doo bokk ci jàmbaar yi ji jamono da def loo man def loo mënul man de fas ma yéene yem ci ñoo man ndax kon du ma xam liggéeyu man yi te ku def boo sonnee la ñëw waaye boo sonnul du ñëw ah kon honorable maa ngi lay sant di la gërëm di nuyu sëñ Abdou Lahat moom sëñ Cheikh Seye sama xarita bàyyi ma ne naa ko mos bàyyi ma ne boole naa laal moom bàyyi ma ne ma nay sa pété ku toll na sëñ Cheikh Seye nag bu la toxee doomam ne la nay sa pété mooy tànkam yii mu dox ci xaaju guddi bi ñëw maa ngi koy sant di ko gërëm bu baax sëriñ Mourtada bu sëriñ Moustapha bu sëñ Alaaji Baara sëñ Alaaji sëñ Moustapha daf ma ne ne sëñ doo ma wax màggal ki xanaa man du may dégg rek nga màggal jàll ma ne ko bàyyi ma bàyyi ma murtada rek mu ne ma ah yow de dangaa far kon ma ne ko waaye d'accord naa ci mu ngi àndal sëriñ ji koo xam ne moom jàngale ato Quraan la xaafis la day waxtuloo ay nit di sonn ci njàngale alxuraan lool seen ji ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax di gërëm nag soxna yi ndax ñii nu bokkoon Cheikh Mor Farima di samay mag soxna xëri mag ci ñoom sax damay xaw a ñeewante gis leen waaw ndax seen cofeel di kon nuyu ak i rakkam di nuyu njabootu ak njabootu gi nu bokkal dëkk bi yëpp ndax dëkk bi kër ñi fi nekk ñoom dañoo am ndimbal ndax miir yi tàqale ay doomu aadama yëpp ba xam nañ ko boobu daanu ñoom daal ñoom ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi luy doxal dëkk bi la ñuy déglu wut lu sëriñ bi bëgg la bëgg lu sëriñ bi bañ dañuy bañ te sëriñ bi li yàlla bëgg doom mu la bëgg li yàlla bañ doom mu la bañ bu ko defee nag mënumaa bañ a tudd sëñ Abdou Salam Mbacké son excellence moom léeg-léeg ma tooy ko ne ma xamaa yow yaay diplomate muridis murid yi mu nekk nit ku baax fu diin ku bëgg doomu aadama te xam ak doomu aadama yàlla xam na ne sama njaboot ñoo koy woo mu leen di tudd waaye dañ ko ne duñu wax sëñ bi dara waaye yow daañu wax ba nga taxaw ci kanam ndax xam naa ne loolu bëgg-bëggam la moo tax ni ma ko bëgg woon defee na ko noonu. ndeysaan kon si ñoom sama kontaan naa. waaye doom yi bokk gàtt dama leen di sant ndax monsieur le ministre am na fi lu ñuy tuddee ansaabu gàtt yéen di taawuni alal birri wa taqwa mbootaay goo xam ne dañu ko jële ci turu maam ya des anda prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci mbaax ak ragal yàlla ñoo tasaaroon ci biir goxi àdduna bi at mu jot ñu liggéey ci rànd ak solo ñëw ci ajjuma ji ñuy tëj kéem yi ñu ñëw jébbale ko ne daanaka su ngeen ci tegoon almet lakk ko suñu yoon nekkatu ci seet leen fu waay bu dëkk bi bëgg rek ngeen defal leen ko fa moo tax ñoom daañu leen defal social ci koor bi nit ñi li ci am teraanga li ci des bu hôpital bi soxlaa ñu def ko li ci des bu nit jàkk feebaree amul ordonnance ba jaaxal leen ñu faj ko ci li ci des lépp lu dëkk bi soxla daal ñu ko ciy def seen taxawaay boobu amit ñu ñuy tuddee gàdd yàlla laa bokk di ay tuur tànk ñoom it waxtu wu ne ñu ngi waaxu ci loolu daayira bi na ci dëkk bi nga xam ne ku ñëw fi la leen di fekk loolu dama ci wax lu gàtt rek sëriñ bi santalu islam bu mel nii ñëpp bokk ñi fi toog ba ku wàcc ci kaar bi boo gàddoo si saak am kër gu lu leen amee njukkal ndax bu ñu fi nekkul woon kenn na du fi mën a ñëw kon ñoom ñi fi nekk ba ku ñëw am foo dugg ñëpp leen amee jukkal ci dikkal loolu yal na leen yàlla sagal doole leen teraanga ak xéwal ak barke am na fi ay doom yoo xam ne dañu daan dañoo dëkkoon ci dëkk bi fii lu toog nii taalibe yi ci dëkk bi ànd ak géwél yi seen xaalis ñoo ko doon dox di ko liggéey benn kenn ci njabootu dëkk bi di doomu dëkk bi di taalibe moo xëy ñëw fekk ma sama kër ne ma damaa doon xalaat loo bëgg ba jàppale la ci ma ne ko xanaa nga yeggalee baal bi mu jël xaalisam def ci ba mu yegg daa rey alxuraan jee jàpp na ci def ci bu xaw bu màggalu Tuubaa Musaa jot bu ñi ñi mënta màggal day def tiraanga rey na ko dëkk bi wala ci xaalis kooku na danañ ko fàttaliku ndax mooy Bachir Dianga dana ko yàlla yërëm allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim kon sëriñ Cheikh ngay ñaan fii daal lu fi waay def sa bopp nga ko defal wa anna laysa lil insaan illa ma saa wa anna sa'yahu sawfa yura hmm? kii nga mooy ministre Antoine Mbeng moom yàllaa nu boole wax na ko léegi junj na ko comme da koo junj duma ko àggale waaye luy defar xëy na di ca dox ma xëy di ca dox ba ñu daje ñu dox ko ba mu waxee boobu xamul gàtt yàllaa dëkk xamul des na ko fi ma sa yónni bi ñu ko déggee doo ko tànk woo naa ko félicité ko mu fàttali ma sunu jataay boobu ak na ko yàlla rafetale yàlla dogal tey ci catholique la diine catholique la bokk ci yàlla ay isaar bokk mais république la nekk ñoo ko tànn yónni ko fi kon su fi ñëwee ngir dégg kàddu yi nga xam ne nii dafay yar kàddoom yar boppam nu war a xam ne xam-xam rek moo am solo te nit ku am xam-xam day yar kàddoom yar jëmm su ko defee daal monsieur ministre yow doom nga xarit nga wala rajo ci kanam préfet laa koy waxee yaay sama ndaw lu may wax yow laa koy wax foo ko yemale baax waaye nag du saa ne da nga ma nuyul premier ministre yow nag yaay sama xarit di sama wëlëri di sama doom di sama jarbaat di sama lépp. fukki at yàlla yi xaw ma fu manqué bis te du ma toog te woowuma ku xool portable am da nga naan waaw Doudou Sarr mii moom xanaa amul ku dul sëñ Mourtada te moo ne mooy président conseil supérieur Khadriya du Sénégal mooy seen président mooy directeur bi bureau information gouvernementale moo ko yore waaye na la wóor ni fi ne lii mu ràngoo moo tax mu fee waaye bu ñëwoon fekk ma fi dara ni muy nuyoo Cheikh bi Cheikh Sadou rek la muy nuyoo làqoo daw taxaw fa bi maa koy làqal ci sax di ko gis waaw te ku toll ni moom nekk ak père nekk responsable communication ci jamono ji nekkoon directeur APS ci jamonoy Souleymane Ndéné Ndiaye xam nga ne kooku dara la waaye man damaa yàgg a topp yàgg maa fonk yàgg maa yëg kon maa koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla na ko yàlla jox cër ko defee nag sëriñ seex yaay sëñ Muntaxa ñaanalal mbooloo mi ñi fi nekk yàlla na yàlla sàmm leen te dolli leen di xéewal fu waay di dellu it yàlla na fa yegg ak jàmm ci di jaay Seydina Muhammad allahumma salli ala Seydina Muhammad wa sallam amin amin ngi sant gouvernement Venezuela ambassadeur bu ak Mauritanie ak Palestine ñu ngi jokkoo ak sëñ Xaadim ndax xam ngeen ni sëñ Xaadim fu muy liggéeyee réew mi day jokkoo ak réew yu bari yal na yàlla fay monsieur le ministre maa ngi porte plaidoyer képp ku dëkk gàddu yàlla monsieur Doudou Sarr ñaar yoon wi ñor nañu lool bu dee bu ñuy gàmmos yàlla nañ jaar ci yoon wi ñuur kukkutari tax ba ndag mooy doléance bi sëñ bi ñaanal amin amin sëñ Muntaxa yàlla na fa yàgg tuwér ila wali